Sen TV ñu am mbégte jàkkaarloo waat ak yéen comme ni ñu koy defee vendredi bu nekk ci seen émission euh, Numbelaan alors tey ñu nar fi ganal euh, amal ñaari gan mu di Bamba Fall maire de la Médina ñu koy nuyu bu baax a baax monsieur le maire dalal ak jàmm suñu plateau. jërë ngeen jëf maa ngi leen di fay bu baax a baax di nuyu sama gars yi ñoom euh, man samay fans lañu dama leen di seetaan toujours. <laughs> maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp. Mhm. am na solo di la jaajëfal bu baax a baax euh, d'avoir répondu à notre invitation également comme tous les vendredis ñu ci ànd ak euh, chroniqueur Ndoumbelane professeur euh, ma lay nuyu nuyu naa la. maa ngi lay fay di nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp. Omar Talla Cheikh Omar. nee naa Aïcha maa ngi lay fay di nuyu téléspectateur u Sen TV. nuyu waa Pikine guddi guddi Pikine laay fanaani mais dem fay jaar rek dem nuyu waa Fouta mais de sell mi la kala bi yow mbii mbima mbiɗa salmina fana e tampani ah en tout cas <laughs> euh, di la jaajëfal bu baax a baax sëñ Saliou Guèye waaw nee na Aïcha maa ngi lay fay alors euh, di wax rek ne que dinañ fi amal face à ci face à l'actu bi dinañu waxtaane euh, li di le cas euh, Abou abu Faye mais également dinañu waxtaane marche wala mobilisation wu M2D avant nag ñuy waxtaane élection locale yi parce que lu jara waxtaane la ñu ngi laam-laamee ndax dina am à date échue ou pas le janvier bi ndax daañ ci daañ ko ci amal élection yooyu loolu yëpp daañ ko waxtaane mais dañuy commencer rek par kii di abu Faye mooy kii ñàkk bakkanam kii suicidé wu on dire comme ça parce que rapport d'autopsie bi génn na rapport d'autopsie d'ailleurs bu ñu bu controversé mais euh, tey jii di fàttali rek ne que lañ ko doon euh, jébbal boromam donc ñu revenir un peu sur ça euh, parce que quand même lépp luñ ci luñ ci mënti wax mooy mënuñu laam-laame également rapport d'autopsie bu génn wax ne que effectivement euh, euh, par pendaison wala euh, dafa dafa dafa xaru alors lan lañ ci mën a jàpp déjà ci rapport d'autopsie bi mais également ci yeneen voies yu jóg pour wax ne que ñoom xaw nañu mettre un peu de de de doute ci ci ci rapport boobu. waaw nee ñu commencé tout d'abord di jàlle ñi nga xamante ne ñoom la seen doom jóge fii ci anam yoo xam ne ba léegi circonstances yi kenn éclaircir ko mhm. mais dama bëggoon tout simplement laaj tout simplement bon surtout mais mes confrères journalistes. kan moo wax ne en fait Abdou Faye il s'est suicidé. parce que souvent da ngay dégg ñu ne rapport bi nee na suicidé alors que dans le rapport de l'autopsie mm. il n'est même pas question cest dire il n'a même pas été dit que il s'est suicidé on a dit il est mort par ah. pendaison. maintenant c'est la conclusion. par asphyxie aussi. oui oui oui oui cest dire sa pendaison bi moo indi asphyxie bi. dañuy wax asphyxie. ba mécanique ba pare daal di cérébral donc donc loolu lu ko indi pendaison bi moo ko indi mais en réalité mhm. mais en réalité suicide boobu c'est la presse ñoom ci seen wàllu bopp ñoom ñoo def seen i conclusion wax ne suicide dafa am parce que su fekkee ne dañu wax ne pendaison am na mhm. est-ce que pendaison boobu moom moo xaru ou bien est-ce que aussi ñi nga xamante ne ñoom la nekkaloon ci foofu ci biir mhm. mën nañ ko rey ça c'est une hypothèse ou bien aussi mën na nekk aussi un assassinat donc bu fekkente ne tey dañuy wax ne pendaison. moo am mais yow sëñ Saliou ci sa ay analyse ak ak ak ak li nga jot a li nga jot a gis yëpp par rapport à ça yow lan nga jàpp concrètement non non li ma jàpp c'est-à-dire en réalité li waroon am nee dafa waroon am contre expertise cest à contre autopsie dafa waroon am. Hmm. dès l'instant où la famille ñoom seen wàllu boobu dañu contesté parce que déjà papaam nee moom gis na ne am na ay traumatisme hmm. alors que sur le rapport d'autopsie ñoom dañu wax ne gisuñu beneen traumatisme. Hmm. donc bu fekkente ne papaam nee moom gis na ne bopp bi dafa am ay traumatisme je crois li waroon tey mooy ñu def benn rapport beneen cest à contre expertise parce que en réalité na ko dans un premier temps bon je ne sais pas maintenant par la suite ce qui s'est passé ba nga xamante ne finalement amul contre autopsie mhm. soo xoolee en li nga mhm. xamoon moo ci affaire policiers yi mhm. en réalité l'affaire Baba Ndiaye bi fi amee affaire Baba Ndiaye dans un premier temps on avait conclu à une mort naturelle mais par la suite bi nga xamante il y a eu des voix qui sont on a vu que par la suite que ça ne ce n'était pas une mort naturelle loolu sax moo indi woon ba ñu jàppoon policiers juger dans les conditions que et finalement ça a fini par la radiation de plusieurs policiers donc toujours contre-expertise mën dans la mesure où son propre père moom nee li mu constaté gis ne doomam dafa am ay traumatisme et en plus de cela aussi tey kenn mënul wax ne le gos en réalité il s'est suicidé dañ ne mort par pendaison mhm. maintenant pourquoi les gens ils ont conclu que c'est un suicide dans la mesure où il peut être bien je ne dis pas que on l'a on l'a tué mhm. mais loolu aussi je crois que c'est une hypothèse donc je crois que tey il revenait tout simplement mhm. en tout cas aux autorités judiciaires de faire donner une conclusion c'est-à-dire ouvrir une enquête pour mën a di pour mën a wax ne par la suite que bi ñuy jotee rapport d'autopsie bi ñoom conclusion bi ñuy def après enquête ils ont vu que en réalité que xale bi dafa dafa dafa xaru mm. mais mënuñu tëb a tëb rek ñu ne pendaison dafa am immédiatement on a conclu que c'est c'est un suicide c'est-à-dire loolu la xel ci boppam mënul mënul nangu donc moo tax ma ne tout simplement mm-hmm. il va falloir bon mën na wax ne béy béy béy wéy na mbuus mhm. mais yu mel ni su amatee mais justement ah. foofu tamit euh, euh, y a une grande interrogation euh, pourquoi demander wu ñu wala justement contre-expertise par rapport à ça bon ça devait être normalement à la demande de la famille mais la en tout cas oui. en tout cas son père mm -hmm. dans un premier temps moom il avait contesté de l'autopsie mhm. te man li nga xamante ne nen moom laa gis mhm. mënuma jàpp ne sax loolu rapport d' autopsie la parce que autopsie dafa am rapport c'est rapport aussi dafa am ay normes mais kayit bi nga xam ne moom laa gis ñu bindee ko ñu ngi bindee ko big ba pare ça a été tout simplement deux phrases la nekk deux phrases loolu mun mënuma jàpp ne loolu autopsie la parce que autopsie d' abord dafa am benn procédure boo xam fa lay jaar ba pare ñu conclure daal ne la mort la par pendaison mhm. mais loolu lépp ñun gisuñu man en tout cas ci li ko ci rapport d' autopsie bi jusqu'à présent même su fekkente ne dañu jàpp ne xale bi dafa suicidé gisuma lépp lenn loo xam ne firndeel na benn enquête bu firndeel ne xale bi tey dafa xaru te loolu lu ko waroon mën a dindi mooy ba parents yi déjà contesté le rapport d'autopsie dafa waroon am beneen contre autopsie maintenant qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que la famille se rétracte ba ñu dem denc xale bi loolu je ne pas en tout cas awma ci awma ci leer mais en tout cas dafay gën a lëndëmal xel yi vraiment sur ce qui se passe au sein même de nos d'accord très bien alors dafay gën a xel yi di rappeler rek ne euh, ce n'est pas la première fois peut-être kaw Abou Faye bi dafa ñëw rek rallonger euh, liste bu fi jotoon a nekk ñu ngi koy gis euh, ñu ngi doon wax waxu Elimane Touré il y a trois ans déjà ñàkkoon na bakkanam ci ci anam yi amaana yu ni mel également Dominique Lopi ñu ngi ko doon gis ak Pape Sarr même même même la am peut-être parce que moo ñëw ci yow Euh, Eliman Touré trois ans après ba léegi ñu ngi ñu ngi essayer voir un peu euh, naka la ñuy situer les responsabilités et mu ngi dem toujours. waaw xam nga nag Sénégal moom nous sommes au pays de parfois tu te de l'impunité et de l'irresponsabilité mm-hmm. il y aura jamais de de de de responsable su yenn yi amee mais mm-hmm. on devrait apprendre à situer des responsabilités pour xam parce que man mais est-ce que dans un pays normal war nañu xalaatee noonu ne que euh, situer des responsabilités devrait être si dur ah mais justement parce que est-ce que nous sommes dans un pays normal foofu mooy la grande question. Mhm. parce que pour man euh, yaa ngi cité léegi Dominique Lopi euh, Elimane Touré Pape Sarr et cetera la liste est est longue et bu ñu ko saafarawul benn yoon yu mel nii dina amaat après du mujj fenn li tax du mujj fenn mooy liñ ci war a am taxawaay ak taxaw seetlu xool ci yan responsabilité moo ci nekk. parce que man dama jàpp ni bu fekkee dégg lañ tubaab garde à vue ça veut que on t'a à l'œil <laughs> ki lay garder à vue kay moom dalaa teg bët. waxuñu garder à euh, découvert ou couvert mais garde à vue ensuite eh, état bi nga xam ni suñu police yi si la nekk. parce que bu ñu la dugalee ci violon xaw ma yan police de waaye am na police yoo xam ni xeetu sow bi fa nekk comme asib condition yoo xamante ni parfois dégradante même humiliante te ki ñu yóbbu garde à vue yoon atteegu ko kenn xamul ndax def na wala deful wala souvent ci proximité bi ñuy nekk mais xam nga quand on ñu wax ñu euh, nit dafa xaru alors que yow su fekkee dañ lay dugal ci biir gré bi ceinture du la topp. ndomba du la topp. lépp loo xamante ni jàpp nañ ni mën nga koo jëfandikoo ngir lor sa bopp du la topp. donc quand on me njàmpe c'est comme si violon daa am salle de bain wala daa am leneen lu fa nekk. et puis même yenn police yi sax boo déggee ne da ngay dem sawi sax dañ lay gunge. Mm-hmm. mais comme li ñuy wax ay du yam ci bopp borom semaine booy jinne et cetera jàpp nañ booy jinne il faut que ñu am ay enquêtes yu approfondies mais ñan ñoo war a enquête est-ce que bu fekkee police biñ ci tuddu moom mooy defal l'enquête boppam. Mm-hmm. wala est-ce que dañu war a am enquête bu indépendant comme sëñ Saalum li wax am contre-expertise pour ñu mun ko xool. mais xam nga euh, li li mu gën a wone rek mooy le traitement yi nga xamante ni moom la ñu am. parce que ak sunu police bi et dafay gën di faral di continuer su fekkee réglé wuñ ko parce que man mënu ma gëm ñu téye nit ci garde à vue mhm. euh, responsabilité police mënu faa bañ a génn cest à la responsabilité de la police elle est engagée dès l'instant que dañ ne teg na la loxo donc ki teg loxo lu la dal ci kaw tegum loxo bi. Mhm. loxoom jógu ci donc pour man responsabilité police def ci engagé après on va me dire que oui def nañu ay caméra wala et mais man pour man war nañ gën a xoolaat traitement bi nga xam ni moom la ñu on ne fait pas un procès contre la police. Mhm. mais même si suñuy rapport ak policier mhm. fi ñu teg citoyen bi jàpp nañ ni sax boo duggee police sax. accueil bi nga war a am doo fa am ni ñuy wax ak yow al traitement bi ñu am diggante ak sénégalais bi war nañ ko xoolaat mais ci cas bi su fekkee ne mënuñu situer responsabilité ñu leeral ñu ba mu leer nii hmm. kii dafa xaru ñu jéem a xam lan mooy mobile bi bu dee xaruwul am na ñu si am responsabilité wala dañ ko torturer ñu mun ñu ko wax parce que mënuñu wax nit bu nekk ci violon comme Pape Sarr ñu jékki-jékki ne dafa lakk dafa dee après ñii ne dañ koo masse courant ñii li version yu bëri lañ ci teg mais bu fekkee la famille mhm. ñoom jàpp nañ ni liñ leen wax convaincre leen waroon lañ leen permettre ñu mun a am une contre expertise ba que yoon mën a situer responsabilité mën ko atte mais malheureusement au pays de l'impunité personne n'est responsable professeur alors peut-être sa réaction par rapport ak kaawu Abou Faye mais dama gis ni que da indaale euh, puso peut-être euh, par rapport à ces violences également yu ñuy noté ci milieu scolaire bi Eh, par rapport ak euh, cas euh, Abou Faye bi je crois que li ma dégg sëñ Saliou ak Cheikh Oumar wax ci doy na d'abord li ma ciy njëkk a